alhamdulilah rabbil alamin euh, mbokk mi nga xam ne dafa laaj mu ne am na ñoo xamante ne dañuy wori matalan ñu wori tey waaye ñi ëpp ci waa dëkk bi matalan wariwuñu te ñoom xëy na seenu mbooloo day néew wala boo moytul sax muy moom rek mu ne ndax kon bu woree tey te nit ñi ñi ko wër woreeguñu ñooñu matalan wori suba ndax man naa ànd ak ñoom julli bu subaa eh, ngir tontu loolu dañuy wax ne eh, rot na tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bu wér mooy xadisu abu umair ibnu anas mu jële ko ci ay papaam yu ndaw yoo xam ne ci wàll ansaar lañ bokk maanaam ci saxaaba yi lañ bokk ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca jamonoom benn bis booba korite la woon wéru koor wi wéru korite wi eh, niir yi nëbb leen ko ba gisuñu ko nee na ca suba ga ba ñu xëyee eh, ba jant laata jant bi di so wala boog ci digg bëccëg bi am ñu ñëw seede ne ñoom gis nañ weer wi biig maanaam gis nañ ko démb ca ngoon ba jant bi so ba ñu waxee loolu yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di leen di digal ñu daal di dog saaba yi ko waroon ñoom ñëpp ñu daal di dog seen koor xam ne yëg ne kon bis boobu bisu korite la waye mu digal len ne ngin bu suba ngeen genn dem ci la nga xamantene ne moy euh, julli kay ba ngir fetu manam julli julli korité fetu yit fet ga nga xamantene ne la l'islam daganal ci ñom kon lolu hadith la boo xamante ne euh, dafay ni kon lek lek nit man na wori tay julli bu suba ngir lan ngir ngant lu sharia nangu te bokk na ci ngant yi sharia nangu mooy li daloon yonent bi sallallahu alayhi ak i saabaam yëguñu woon ni weer wi feeñ na nga xam ne ba heure julli raw leen ca bis boobee ñu nekk ah, ki nga xamante ne nag moom dong moo war nga xamante ne moom munta julli iit moom rek ndax iit fawu mbooloo maanaam bokk na ci julli yi nga xam ne dañ cee charte mun am mbooloo bu dee moom ca bërëb ba mu ne amul ñu mu àndal julli iit bu boobaa kon dañuy jàpp ne wallahu taala aalam loolu ngant la loo xam ne dana ko may bu subaa bu mbooloo ma di julli ji mu ànd ak ñoom